une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer allahu mooy fadlul asim kum jox nga neel deesu la yeem faadilu mooy fadlul amim turam wa doy na xarnu bi allahu moy fadlul asim kum jox nga neel deesu la yeem fadilu mooy fadlul amim turam wa doy na xarnu bi mooy doomi samsul wal xamara mbàkkeg musóobe duñ ko jara moo nampu weeni gor mooy bamba tey ci xarnu bi siditi baayam lay royaat leru cosaan ga royaat nday jaadi xayru muxsinaat moo doon mbooti xarnu bi mooy nobbalu lislaam fi nun mboolem sërif yi moo ci gën doonay aseynu wala sel may xaadamam ci xarnu bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi bokki sénégal bokki lislaam bokki ni jàkkaar lool bu ngeen gisee jotaay bu sel bu barkeel bii ngeen xam ne jotoon ndigal fa ndigal baax a bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mi ñëpp ñaanal yàlla Mbacké yàgg yàggu gànd a wér rakam ji alxaaja ba Mbacke falilu xalifa Samadu Fadal Mbacke yàlla fi yàgg lool Mbacke te wér muy lan waa dayratu fondation xitma Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke borom na moom jàmbaar lislaam ja yal na ko yàlla fayal ñooñu nag ñoo bis bu rëy bis baraka moom Cheikh Ahmadou Fadal kañ lay doon le premier janvier dimanche fan lay xewe ndindi ñoo ñoom ñoo toog nii yëkkati kàddu jëme ko ci boobu kàddu gu njëkk gi daan ko jëbal alaaji fallu bamba ja dina woote ci mboolem programme bi ak nin ko namme defee yëkkati kàddu gu ñuy des jëbal ko alaaji fallu kan di wax ci mboolem culture lu jëm ci njàngam alxuraan mi ak njàngam xasaayil mi ak turu yàlla bi ak berne yi waaye sëriñ fallu sàll imam dina woote ci mboolem lu jëm ci wàllu organisation bi ak la cay xew lépp daanu ko leeral kaddu soxna yi soxna caara sekk dina woote ci mboolem kaddu jigéen ñi ak yaay faal yi ak baay faal ak ñu lu baax ak soppe sax mën fadal mbakke kon kaddu gaa ngi nii dañ ko bàyyi kan alaaji fàllu bamba ja aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala nabiina muhammad afdalu xalqillah bila taraddudin wala stibah mbokki julit yi nga xam ne yéen a seetaan fépp ci àdduna noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara waaye eh, di ñëw ci ni nga xam ne noonu la ko sunu kilifa gi waxee mu war a amee noonu muy ziar bi fondation xidma cheikh Mahamadul Fadal di ziar alxalifa cheikh Abul Baraka Mbakke ibnu cheikh Mahamadul Fadal. ziar bi nag jàpp ko le premier janvier 2023 ca Touba Ndindi programme bis bi nag mbokk yi nii lay tëddee buñ xëyee 8 heures ci la mise en place ba di tàmbali waaye nag buñ eggee ca 9 heures daal di berne ndekki yi. mbokk taalibe yi nga xam ne jugee nañ ci gox goxaat lu ci mel ne zone Bawal ñi nga xam ne ñoo ngi fi zone Dakar zone Thiès zone Louga ak yeneen zone yi nga xam ne ñoo ngi ci Sénégal gi yëpp ak bitim réew waaye nag bu ñu eggee ca 10 heures culture daal di tàmbale liggéeyam nag ñu tàmbale li nga xam ne mooy njàngum alquran mi ak njàngum xasida mi ak durus buñ demee nag ba àgg ca 12 heures ñu amal benn conférence boo xam ne kenn ci mbokk taalibe yi nga xam ne ci biir daara ji la bokk moo ñu koy defal buñ eggee ca 14 heures nag daal di tàmbalee dalal gan ñi waaye julli daal di berne bu ñu àggee ca 16h ki ñuy defal conférence ba mooy Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi thème bi jël jëm ci Serigne falilu Mbacké ak social di ci woo mbokk taalibe yépp waaye nag bu ñu eggee ca 17h daal di ki nga xam ne mooy Serigne abul Baraka Mbacké xalifa Cheikh Mahamadul Fadal lante ba déwén incha allahu taala ñu ciy woo mboolem koo xam ne am du jàmm nga mboolem koo xam ne soppe nga waaye mboolem koo xam ne nawle nga ci ñun te di daayira wala ngay fondation ak foo mën di nekkee ci réew mi ñoo ngi lay woo ca bis boobu wasalaamualeykum wa rahmatullah ñuy wax ci kàddug waa commission culturelle da nga xam ne loolu nañu programme ngir dundal ko bis ba ginnaaw bu ñu xëyee ba dajee am na nañu yéene la jiitu ci suñu euh, liggéey jàng ci ay kaamil lu toll ci dunduk seex Mamadul Faadal muy 82 kaamil juróom-ñett fukki kaamil ak ñaar yoo xam ne door nañu ko ginnaaw loolu it amal ci ay limu xasida yu takkoo takku yoo xam ne mën nañu caa lim lu toll ci wakaana xaqan ak mafaatixul bisiri ak yeneen xësida yu ca topp am nañu yéeney euh, dundal ko ci bis boobu mbokk yi ginnaaw loolu ñu ngi ci soññi waa fondation bi yëpp rawatina waa commission culturelle dinañ soññ bu baax a baax seenu teewaay ci liggéey ba ndax euh, sëñ Fallou daa mat liggéeyal la sëñ Tuubaa doon wax ne kuy liggéeyal ku yàlla gërëm saa la gërëmee nga am gërëmal yàlla kon am nañu yéene bu bis baa incha allah rabbi ñu taje fa suba ba nañu jébbalee sëñ bi suñu addiyee tase fa liggéeyal sëriñ fàllu di ñaan yàlla nañ ca dajee ak ngërëmam ginnaaw bi ñu demee ba tàkkusaan ñu jël suñu liggéey daal koy jébbal suñu aboo baraka mi nga xam ne moo fi toog toogaayu seex Mamadul Faadal di ko ñaan yàlla saa borom yàggal ko fi lool ginnaaw loolu ñu jébbal ko suñu liggéey mu daal ñu yeewi ñu yeewee ko ba beneen yoon incha allahu rabbi ñu jël kàddu nag ci kàddu organisation bi xam ne moo moo organisé loo xam ne si moo nekk ci wàllum fondation bi ñu ngi woo ñëpp ñi nga xamante si ni ñoo bokk ci organisation rawatina commission yi nga xamante si ni moo aju ci biir organisation muy commission accueil commission ahlu café commission ahlu waañ ak commission sécurité ak commission hygiène mboolem commission yi nga xam ne ñu ngi ci biir organisation rek ñu ngi leen di woo di leen xamal ne euh, teel nañ leen a soxla parce que liggéey bi moom doonut ne ci bis bi lay tàmbale ndax bu nee suba la bu soo yàlla am nañ ñoo xam ne si ni ñu war def la daan ko tonte ñu ngi waxtaanee waaye ñi ngi ñaan mbokk taalibe yi nga xam ne si ñoo bokk ci biir organisation yi ñëpp ñu teel a ñëw te mujj fa njëkk fa ba nopp daat fay mujj tey ñaan mbokk yi nga xam ne si nag ñoo ñëw ci bis ba ñëpp ñu dimbali ñu tamit ci wàllum organisation bi ndaxte yaakaar naa ne la war fekk si bu fekkee da laa fekk si ci noo xamante si nii bokkut ak yow di di nga programmé pour fekk si bi boobaa affaire bi mën naa am ak jaxasoo loolu nag ñi ngi ñaan mbooloo mi ñi nga xam ne si ñooy toog ci bis ba ñëpp rek ñu xam ne organisation taxawee posé na naa taxawee noo xamante si nii bu soobee yàlla bés moom dara du ci am loo xam ne si lu ñu jot la wala dara ndax euh, sëñ Fallou moom képp koy defal bu soobee yàlla li nga li nga man rek ngay def waaye am na loo xam ne si denc na la ko loo xamante si nii yow jotagoo ja boo teele boo taayee nag bu soobee yàlla doo jot nañ nag nañ gën a farluwaat bu baax a baax tax xam ne sëñ Fall la ñuy liggéeyal tey woo mbokk yëpp rek di ñaan yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm si barke Sëriñ Fall. di soññi sama mbokki soxna yi nag eh, ci ziar bi nga xamante ni si ñu ngi koy amalee le premier janvier 2023 fee sa nindi di leen soññ ci laxasaay yi nag bu ñuy ñëw ñu fonk laxasaay yi sol lépp ba mu mat di leen nag bu ñuy ñëw ñu teel ñëw jàpp si liggéey bi. jërë ngeen jëf mbokki jullit di mbokki taalibe yi ah bis baa noonu woote baa noonu. kañ lay doon le premier janvier 2023. fan lay xewee ca Ndindi barab ba nga xam ni Alaaji Fallu Mbàkke bàyyi si Musaa Falilu fa la toogoon wayta banaa ko yaa sañ ci def di ku rëgg gi ni xamal réew mi fa la gaay woote waa ñu woote ñan lan fondation Cheikh Modou Fadal Mbacké fondation nag day dëgër bâtiment bi bëgg mu dëgër da ngay fondement kon daal daayira boobu ñooy woote woote fépp bawunu kenn woote ñëpp bawunu fenn waaye nag ana soppe Cheikh Modou Fadal yi ana turandoo Sëñ Fallu yi ana ñi bëgg Alaaji Fallu mboolem bitim réew ak Sénégal waa Louga wuy si waa Singasoor wuy si leen waa Kaolack wuy si waa Ndakaaru wuy si leen Sopay Samat Mboora ba Tiwaawan ba Mbuur kenn desul ñëpp lañ woo ci woote kañ le doon le premier janvier ñu ko woote fondation Cheikh Ahmadou Fadal Mbacké ko ñan sëti sëñ Fallu yi ak sëtaat ñëpp ngi ci biir liggéey bi nu ñaan yàlla yóbbu nu jeg jàmm programme bi nag mi tëdd mooy xëy jàngal xoraan jàng xasaayit ànd ko ki ak saafante ak gët gu neex de nget gu neex de ko xeeñu di bàgg dem ak dikk ba kañ takkusaan nu sëlmal alaaji boo mbàkke falilu yàlla na yàgg mbàkke alak rakam yëpp dikk teew ci kanam mbooloo mi yëkkati kàddu nu jëbal ko liggéey bi mu ñaanal nu nu dellu ba déwén waaye ku tuddi di ku ne sax dem ci jàmbaar ja kan Cheikh du Fata Mbàkke ñu ko koy yëgal di seen sëriñ di seen bàyyi waaye jàmbaar ja kan Cheikh du Karim Mbàkke Falilu borom jëf ju rafet ji tasaaru ñu ko koy yëgal di ci woo ñëpp bawunu kenn diggante ndindi keera ndaw keera mbay tubaa bago dooru bago samfaal daaru xudóos bawunu kenn bawunu fenn bawunu ñenn ba saam yabal kon daal bis naa allié seen bisa ngoog nañ ci séentu jàmbaar ja si mu su Musaa Mbàkke moom alaaji Baara Mbàkke Falilu ñu ngi woo kon daal bokki bi la bis ñu ko woote fondation Cheikh Modou Fadal Mbàkke cee ji gaay yàlla lool ñu yàgg woote yàgg leen wuy si wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer كنا به ينفرد